papa comme nanguwoo lekk nanguwoo def dara kon kay jëli la moo gën ndax lii baaxul ci yow boo ko defee dinga lor sa bopp lor sa papa loor ma man mi toog te gënalul sa papa man mi gënaluma malgré lim lay def yépp daf laa bëgg malgré yow lig may def yépp maa ngi koy muñ ma lay ñaan comme que toll na la fii ñu dem jëli Leyla ngir nga sauver sa bopp jàppale ñu ñoom nii ci kàgge Thialy na ndax mooy li la ganaan te mooy li ñu arrangé ñun nii pour ñu sauver la waaw man su ko jëlee doo ma ah comme loolu fi sas nañ ko muñ rek yàlla baax na sa papa garaawul dinaa wax ak moom soo paree xoolal la fi yére bu gën a rafet ci sa yére yi nga sol ko nga dem jëli ko nga wax ak moom alhamdulilahi rabbil alamin caana yow jigéen bu baax nga te maag Layla maa ngi ñaan ma ëmbal ko ba ñu am doom bu jigéen ma tuddee la ko jigéen gënu la. incha allah. Eh sama yaay.

sama xol laa fi bàyyi te saa man du dund lekkatul naanatul seen kër gi comme comme fu am dëj kon xam nga ne maa baax ci kër gi ba pis kii li mu la teg ci diggu dëkk bi yëpp toroxal gi ma la gi mu la toroxal yëpp saaga ma man sa baay nga dellu am ñàkk jom dem di ko jëli yow papis wér nga pap dafa juum rek xale la rek xale nga ba xale la ba saaga ma man moom loolu ko gën a métti si àddunaam nii moom lay réccu da ngay fen parce que bu ko métti woon du ma gis ma toog gis nga ko ni mu doxalee kon dina jàdd fii sukkal ma baaloo ma soogu yëg ci ci ci ci ci néegam voilà boobu nag waxtaan naa seeg moom bi mu koy jëli waxtaan naa ko baat bi récupéré waat naa ko dinaa ko téyel sama bopp en plus jàmbaa dawul de daa uti doole te yow xam nga ni bu baax sama ñëwaat arrangé wu la su may dal sa kaw doon naa ko sax. bu bul fàtte ne papis su ma ko newul woon mu jëli la du la mës a jëli sama liggéey la. loolu de du dëgg yow xam nga ne bu baax du dëgg ndax ba may génn fii sabar rek nga ma yeewu lu ne def nga ko. mais dina la coûter cher sama ñëwaat da tàng ci yow e trop. te incha allah ni mu duggee nii dafa am nostalgie néegam rek moo tax mu daal ah nostalgie néegam saaga sa baay war a ñëw njëkk ma nuyu man mi gorom elle n'a même pas salué. nga ne kii changé na. dina jënd guro ñëw ñëw ñëw baalu soxlawuma loolu. déglu li ma lay wax gis nga kii Papis yow alku nga non si alku nga te danga nga def ni ñëwum ci biir kër gi dina changé dara ci sama attitude ak moom tu te trompes Papis àdduna ngi sàkkal te du ma génn kër gi fii laay toog ñu xool ma naan kii li muy daj ci man la koy dajee. doo dem fii ngay toog. fii laay toog ci kër gi. mais yow mais dañoo defe ni nit daal bu yanuwul ay sagaram wérul billaahi nit a ngi ñaañ ci dëkk bi di di solu tey te te dañoo dañoo toppalal mais papis mi wér na.